waaw man moom sama xalaat ci combat Gris Bordeaux bi mooy maanaam Gris Bordeaux mooy sama mbër man waa Fass laa quoi waaw te Gris Bordeaux gëm naa ne day daan Balla Gaye waaw lenn nag bu doon lenn rek laa bëgg mu defal ma ko si combat bi mooy combat bi na ko bëre si ci tey jox booy bi cër respecté ko quoi waaw te combat bi dama bëgg mu indi bëre comme que adduna bi yëpp nee nañ mënul bëre dama bëgg mu indil ma bëre parce que man xam naa ne Gris Bordeaux bëre rek lay def mais gars yi dañ ne mënul bëre léegi man combat bi su ma sañoon day ñëw bëre. xam nga ne Balla Gaye moom mun yambar Bordeaux Gris Bordeaux du mbër balaa nga xam ne du mbër nga dem seetaan ko face contact du daan sax mbër Gris mënul dara man maintenant gii laa dëkk mais xam nga lan la dafa war a wane bëre ñëpp dañuy topp si ginnaawam Gris Gris bu ñëwee taxaw kataap bi mu jeex na wane bëre tuuti gars yi xaw am sax xam Balla Gaye kuy bëre ak moom xam nga ne foog nga mun bëre mais Gris Bordeaux du mbër kooku du koy daan Balla Gaye moom wax dëgg fa yàlla man moom wax ji sa bugguma sa muy sori Gris yambar la munul dara. loolu te kenn ku ci nekk combat jànq daal si ni ma ko mën a waxee ndax kenn ku nekk dafa am jaar-jaar boo jaar ku ci nekk nga am nga am ay jéego yoo def ci làmb Gris Bordeaux kenn kenn umpalewul ni dafa daan ay champion ndax ku daan Antoine Bakhoum daan ko champion ñu ni detuwaay nga daan Abdou Diouf daan Lac de Guiers daan Samba Diagne indi Bombardier daan ko donc kon def nga lépp waaye Balla Gaye tamit alhamdulilah rabbil alamin dafa doon xale ñëw ci làmb yàggul dara def ay jéego def loo xam ne ay magam defuñu ko te bi mu dugg see ci làmb ak léegi yàggut te tey jii boo xoolee ay jaar-jaar Balla Gaye am na ñoo xam ne dañ naan Balla jaar-jaaram dafa yomb mais yombut ndax daam kànji ku xool combat daam kànji da ngay xam ne combat bu yàgg la ñu bëri ñaar round mu soog koy daan. ñu xeex te nit ñi nee neen Balla Gaye du xeex ñu ne déet waaye nga indi Balla Gaye Saloum Saloum combat bi métti lool Balla Gaye ñëw am ci ndam Ousmane Diop kenn ku ne xam nga ni technicien la ci làmb dafa bëre bëre ci yaram bi Balla Gaye ñëw daan ko ana Tapha Gueye ñu ne déet waaye nga ñëw indi Yaxya Diop Yékini mbër moo xam peut-être def na lu kenn deful ci làmb 15 ans de règne Mame Ndao Tyson dama kaa jëlale mais nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi ci combat jànq ndax ku ni kenn ku nekk ñu ngi naan Balla Gaye dafa jeexal Balla Gaye dafa jeexal Balla Gaye yaram baaxut mais nag Balla Gaye bu njëkk laa gisaat te incha allahu rabbi combat bi yàggatul fekk samedi moom a ah, ñu teg ko ci kilomètre gañ. chacun d'entre eux part avec 50 pour cent bon Gris ay mbokkam dañ ko yeb ka gis na ci fi mu jógee bon Balla gis nga fi mu jógee aussi ay mbokkam yeb ko. Donc ces deux lutteurs-là, ce ne sera pas un combat facile. Un. De deux, pour voir que Niwa face, c'est une écriture des grands, des grands événements. loolu dañ préparé depuis les temps de Mbaye Mam et consort jusqu'à nos jours en passant par Tapha donc ce ne sera pas un combat facile bon sur le plan de la bagarre vous savez des balles de ñëw comme il avait fait avec euh, Tafatine, entamez entamé bagarre là Gri pourrait être dangereux pour lui bon Gri aussi vous bu ñëwee entamé beurre que c'est un fin technicien quoi il xam nañ ne bu jàppee du tant que terminé l'action. mais la question qu'on se pose c'est Balla mooy d'accord changé ne quoi changé depuis son combat contre Yekini le poids qu'il avait baissé mais est-ce que yax est-ce que cette force là il faut toujours quoi mën ne changer ni comme on a vu avec certains lutteurs dont je ne citerai pas leur nom mais dans les dem dans si da ne pas ah loolu mot a bàyyi xel la. Oh, jeex na jeex na tàkk Balla Gaye da koy daan. loolu nga gis. loolu laa gis te looloo yam. mais nee nañ giri taxaw na de te giri bi woon du giri bii. Balla ba woon du Balla bii waaw. loolu nga gis yaa lool laa gis te loolu mooy am bu neex. mais gisoo ne entraînement yi Gris Bordeaux moo gën a taxaw Balla Gaye. non gisuma loolu parce que gis naa entraînement Balla Gaye gis naa entraînement Gris Bordeaux mais déggoo lu ma la combat boobu noonu bu yàggee yaa ngi comprendre du sax yàgg yàgg sax du ci am Balla Gaye da koy daan jël bu kaaw loolu man maa la ko wax Bamba laa tudd xool ma bu baax lu leer laa la wax bala da koy daan lu leer laa la wax xoola man Pikine laa dëkk faral Géejawaay di liggéeyee Fass Balla da koy daan surprise du jeex am combat boobu noonu xoola ñoom ji di wax Gris Bordeaux ci jëmi boobu xam na ni combat bi jeex na moom xam na ni Balla da koy daan lu leer nañ laa la wax Balla da koy daan Balla moo ko mën moo ko dàq bëre bëre Gris Bordeaux amul bëre bi xeex bi ñuy wax amu ko yaa ngi dégg amul xeex amul bëre amul doole Balla moo ko dàq bëre ah Gris dàq koo xeex yaa ngi dégg te Balla Gaye boo gën a nekk xale waaw kon baax na. loolu gars yi noonu loolu loolu loolu ñoom loolu la ñu gis mais ñun mii di dem Fass di xool Gris Bordeaux nekk ak moom parce que man mi di wax ak yow nekkoon naa Fass man xam naa Gris Bordeaux bu baax tëlewul mën na bëre lool mais xam nga booy bëreeg nit ñu ne salaamaaleykum nga dóor ko mu jébbalu foofu bëre du fa feeñ. waaw Gris Bordeaux ñu mu bëreel yëpp looloo tax nag kenn mënul gis bëreem. parce que salam mu dóor la ay góor droite daan la Beure du feeñ looloo waral gars yi ne kee mooy favori ci beure. mais samedi samedi dina leer ni Gris Bordeaux beure rek lay def. waaw. je dis Dina le balle sur le plan physique Moi, quand j'ai parlé d'ossature ossature moi le côté l'aspect physique xam nga dafa balaisoon jël un certain pas contre Yekini après affaire bi créé ko des problèmes finalement faju na entraîné na ba bon gris c'est une force naturelle gris et bombardier c'est des forces naturelles euh, ils sont costauds la est ce que ni mu ni mu perdre poids ni avec entraînement avec les baboy et autres mais est ce que ya xam force est ce que cette endurance là dont balle avait à dans le temps loolu laay wax man ne moo tax man préparation physique bi man Gris Bordeaux laa jox favori parce que kooku il naturel Gris c'est comme Bombardier c'est des lutteurs qui sont naturels quoi ah, ok. daal doy na waar quoi tey jii moom bu ma bu ñu sañaloon ñu teg ko ci télé yi xam nga ñu ngi seetaan ko en ah, benn instant tamit loolu du ñëpp ko xam tey sama genre gi mën nañ ko mën yaa ngi comprendre am na ñoo xamante ne tey jii ñu ngi ci dëkk àll yi loolu duñ ko mën xam na loolu ngay sóoraal mais tamit nag promoteur bi nga xamante ne tamit moo tëgg combat am def ci alalam moom mooy xool lu ko mu def ko combat am moom ak fu mu ko mën di tegee moom bu soobee yàlla yonent bi moom dinañ ko seetaan moom. loolu nag loolu lu ma bëgg la man dafa ma neex quoi parce que promoteur yi dañ leen war a dimbali waaw parce que làmb mënoo jël sa 100 millions def ko si làmb boo pare yaakaar ko si ay ticket te sponsor ñëwul man su ma sañoon dañ koy def sax junni pour seetaan ko nga fay junni. parce que loolu jar na ko combat Reug Reug rek ah, buñ la biyee junni sax jar na ko waxatuma la Gris Bordeaux Gris eh, Gris Bordeaux Balla Gaye ñu ñëw tegal ñu si Reug Elton waaw pour man loolu jar na sax junni waaw man loolu moom dama si d'accord waaw parce que Luc Nicolaï dafa ñëw pour jàppale jeunesse bi kon ñun ñun jeunesse bi dañ ko war a dañ ko war a jàppale waaw. ça dépend rek xam nga promoteurs yi moom am na ñoo xam ne seen loxo jot na am na ñoo xam ne tamit seen loxo jotul war nañ mën a xool nu mu rafetee rek ñu defee ko noonu quoi waaw loolu

et puis ça veut dire que aussi les promoteurs li fi newoon newatu fi quoi qu'on ose le dire quoi bon cette surface financière qu'il avait au départ mais ils l'ont plus Il il faut pas concevoir la face il faut dire la vérité aux gens parce que et puis ces combats coûtent cher Ils il veut se rattraper par ay pays les États-Unis c'est pas l'Afrique mais quoi bu ko waxee am droit parce que ay millions la def ci ji combat du combat Il ndaw fait fay 80 millions fay 70 millions fay nga khalis sponsor ni ñew ni waro ñewé ko té sponsor da ci wara bok bu ko défé amna na fu mu ko ték ndax kenn ku nekk foy dugal sa khalis ñaan nga yalla gañee ci dara donc ko boobu moom du ko ci mere mais nak ku melni man bu fekkee dëgg bëgg lamb rek dund lamb don amateur lamb té normal war nga mëna dag sa yité dem tok stade seetaan len ndax dugg si lamb dugg si mbeur dafa am solo ci lamb ji yoon la ñuy seetaan dugg si di seetaan bàkk dafa am solo ndax ay jamono maam góor gi ndeysaan bu ma saan daanu ay bu daanoo ba ci wasa bu ñëwee bu ñëwee saan rek sa xol sedd day bàkku ba nga kontaan day maa kontaan si doomu Fass jooju ah waaye Pape Kane waaye jëm si yàlla ji yàlla ko yàlla yërëm te yëxin te ko xaare ajjana foo mu jëm yàlla a fi mu jege kooku tamit champion la waaw ñoom booy